عن الشقيقة قد واذكر زوجة فذه خمس فلا تغفل عنها ولا تهلا من أول بنت دوم جو جيجين عند اجتماع الوارثات فدون نك واي فداجيك واي دون جو جيجين وبنت بنين اك دوم جو جيجين بو بايكو تي دوم جو غور موي سيت بو جيجين بو بايكو تي دوم جو غور كو موي دون waxon nañ دوم بو جيجين jigéen بو buy رك ci doom ju góor lay bàyyee ko mm-hmm. waaye sët bu bàyyee koo ci doom ju jigéen du doon mm-hmm. moo tax mu ne wa bintuwunin ak sët bu jigéen bu bàyyee koo ci doom bu góor wa ummun ak ndey wa uxtun ak mbokk xawsuhun na seen ak làq jalaa feñña mm-hmm. mu ne aani li ma namm ci mbokk googu noonu lay wax uxtun ashaqiqata mooy mbokk bi nga xam ne moom néew bi ñoo bokk ndey ak baay ashaqiqa mooy ki nga bokkal ndey ak baay wazkur tuddal zawjatan soxna muy jabar fazihi yii ma lim mhm. xam sun juróom lañ mhm. falaa taxfulan bul fàtte mhm. wala falaa taxfulan bul sàggan anha walis ko walis juróom yooyu wala tahila te bul fàtte falaa taxfulan bul sàggan anha walis ko wala tahila te bul fàtte waxoon na le way doon yu góor yi buñ tasewee muy ñaar fukk yooyu ñett ciy doon mooy doom ju góor ak jëkkër ak baay muy ñett mu ne la way doon yu jigéen yi nag fii lim lay jàngal way doon yu jigéen yi buñ tasewee mu ne juróom ñoo ciy doon ku njëkk mooy doom ju jigéen ñaareel ba mooy sët bu jigéen bu bàyyeekoo ci doom bu góor ñetteel ba mooy yaay ñeenteel ba mooy mbokk moo xam ne moom niiw bi ñoo bokk ndey ak baay juróomeel ba mooy soxna kon jigéen ñëpp nga xam ne euh, fukk lañ buñ tasewee juróom ñoo ciy doon mu ne فإن اجتمعت نم دجينا الوارثات وي دون ني جيجين فلا ارث ديت اك دون الا لخمس لول نيل جوروم من هنا توكي سي نيوم الزوجه موي سخنا والبنت اك دوم جيجين وبنت الابن اك دوم بو جيجين بو بايكو سي دوم بو غور موي سيت بو جيجين بو بايكو سي دوم بو غور والام اك ياي والاخت اك مبوك الشقيقه ميغا خا نمو نيو بي نيو بوك نداي اك باي من ومسالتهن سن مساله من 12 موغي توكي سي فك نيار ولا نعم هو ونسأل مسألة نعم من أربعة مجتكيت ينت وعشرين أجنار فوق لو تحمل لتوافق مخرج السمني غير توافق غير دبوك نياري جنواي السمن ب والسلس أكسلس بالنسبة للنسف من أبو بابا ليل بنت نيال دوم نصفها نصفهم إثنا عشر فوق نيار ولكل نيال كب من الأمتيائي wa bintil ibni ak sët bu jigéen bu bàyyee ko ci doom bu góor sudusa sudusa arbaatul mooy ñeent wali zawjati ñeel na soxna sa sumuna sumunam salaasatun mooy ñett wal baaqi la des nag waaxidun benn lay doon lil uxti ñeel mbokk ma shaqiqati mi nga xam ne moom néew bi ñoo bokk ndey ak bàyyi taasiban ci asaba li muy wax foofu mooy léegi juróom yi fi dajee war a néew bi doom bu sët bu jigéen yaay ak mbokk mu jigéen mu bokk néew bi ndey ak bàyyi ak jabar ñuy juróom mu ne bu waa masala bi ni muy wéree xam nga jàngaloon nañ la ci bind bi weesu ne la boo bëggee miraas da ngay dem ci li ñuy tuddee al anzaarul arbaa mooy li ñuy tuddee at tawaafuq at tadaaxul at tamaasul at tabaayun nga xool masala bi nan lañ def léegi nga ñëw xool diggante kan jabar moo fa nekk jabar lu muy génne lu muy doon bu fekkee doom am na mooy sumun sumun génn waayam samaaniya la juróom-ñett nga bind samaaniya nga ñëw xool yaay yaay lan lay doon bu doom amee ñu ne la lay doon nga bind sitta ci koor sët bu jigéen bu bàyyee ko ci doom bu góor bu doom doom bu bu jigéen nekkee fa nu muy doon mm-hmm. ñu ne kon bu boobaa xam nga bu doom bu góor moom du doon mm-hmm. waaye doom bu jigéen moo fa nekk moo tax mm-hmm. doom bu góor amul léegi ñu ne kon bu boobaa moom su mun sudus lay doon moom tamit sët bu jigéen bi sudus lay doon léegi mu des kan waaw euh, génne nañ yaay yaay sudus la sët bu jigéen sudus euh, jabar di donn sumun euh, léegi foofu noonu waxtu su mbokk bu jigéen bi mbokk bu jigéen bi moom du am foofu cër mm-hmm. moom asabaat lay doon mm-hmm. léegi nga xool ñaari lan lañ la waxoon da ngay xool ci al anzaaru arba nga xool diggante sitta ak sitta lan lañ def mm-hmm. ñu dañoo def at tamaasul ñoom ñaar dañoo tolloo ñu ne ñaari bu fekkee dañoo def tamaasul ñaari chiffres yi da jël benn ci ñoom ñaar boo jël baax nga jël benn sitta nga xool ko moom tamit ak samaaniya sitta ak samaaniya lan lañ def nga gis ne dañoo def at tawaafuq lu tax sitta mën naa xaaju ci digg bi sitta boo xaajee ci digg bi lu lay jox salaasa la lay jox samaaniya boo xaajee ci digg bi lu lay jox arbaa la lay jox ñu ne kon ñoom ñaar def nañ at tawaafuq bi nisf te sitta boobu boo ko génnee woon ci samaaniya munu cee génn ñaari yoon kon tadaaxul amu fa tadaaxul mooy boo xam ne mën naa génne ñaari yoon ci chiffre maanaam boo xaajee samaaniya bi daf lay jox beneen chiffre bi wala chiffre bu ndaw bi boo ko génnee day yem képp mën naa génn ñaari yoon ci chiffre ba la mu yem ci képp te léegi Siteu boo ko génnee ci samaaniya ñaar moo ci des kon nga xool ne dañoo def tawaafuq ñoom ñaar tawaafuq buñ ko defee nag da ngay jël genn wàll wifqu bi li ñuy tuddee wifqu bi genn wàll benn ci ñoom ñaar nga darbu ko nga multiplier ko ci beneen chiffre ba wifqu Siteu genn wàllu Siteu ñaata la salaasa nga jël salaasa boobu darbu ko ci samaaniya salaasa nga multiplier ko par huit trois fois huit vingt quatre lay jox boo jëloon huit tamit nga jël mooy wifquwam genn wàllam muy arbaa arbaa nga darbu ko ci sitta quatre fois six vingt quatre lay jox ba tey loolu moo tax mu ne la masala boobu mu ngi wéree ci ñaar fukk ak ñeent léegi nag ñaar fukk ak ñeent boobu noonu boobaa nga xool lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy euh, sudusam wala lan mooy sumunam moom la lay wax ne bu boobaa dañuy dem ñu xool bintu ñaat lay am bintu moom nisfu lay doon cëram nisfu la genn wàll hmm. te waxoon fàtt nañu jël nisfu boobu sax genn wàll mooy na isnayni ñaar la te isnayni boobu boo xoolee moom tamit ak euh, sitta boobu noonu da ngay gis ne dañoo def tadaaxul ñoom ñaar hmm. isnayni ak sitta dañoo def tadaaxul hmm. bu ñu defee tadaaxul da ngay jël lim bi gën a mag boobu tudduñ ko woon waaye tadaaxul waxoon nañ ne bu ñu ko defee da ngay jël lim gën a mag kon foofu looloo tax dañoo jël sitta bi rek xool ko ak samaan yi nañ def léegi nga njëkkee doom jigéen bi nisfam mooy ñaata genn wàllu ñaar fukk ak ñeent mhm. isna achara la nga mhm. jox ko moom ñaar fukk ak ñeent mu dem mhm. doom ju jigéen ji ak yaay yi ñoom sudus la ñuy doon sudusu euh, li nga xam ne mooy ñaar fukk ñeent ñaata la sudus ba mooy boo xaajee juróom benn xaaj ñeent la lay jox ñeent la lay jox quatre fois six mooy quatre boobu noonu ñoom ñaar ku nekk nga jox ko ñeent ci fukk ak ñaar mu des ñaata mu des euh, mu des euh, waaw ñeent nga ñaari ñeent boo ko génnee ñaari ñeent mooy huit mhm. nga génn ko ci fukk ak ñaar mu des ba léegi ñeent mhm. <laughs> ñoom ñaar ku nekk jël jël ñeent kon fukk ak ñaar yi desoon ci ñaar fukk ñeent ñeentee mhm. mu des ñett foofa wali zawjati ñeel soxna sa sumunu a sumunam sumunu ñaar fukk ak ñeent ñaata la trois la nga jox ko trois am wal baaqi la des ñaata moo fay des mm-hmm. ñeent boo jëlee ñett benn fay des mm-hmm. mu ne wal la des waahidun benn la lil uxti ñeel mbokk ma ashaqiqati mi nga xam moo bokk nu bi ndey ak bàyyi taasiban ci asaba kon mm-hmm. masala boobu noonu lay noonu lay tëddee wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi